alhamdulilah bi ñu paree ak jàmm ak salaam lii nga xam ni vraiment moo ñu fi indi woon muy muy comité électoral bu communal nii nañ ko jàppee nii nag comme sama goro ni mu ko waxee léegi sama goro yow yaay meilleur goro bi dafa am beneen goro mu nekk fii sama meilleur goro ngi nii donc donc vraiment ni ko jàppee nii dama bëgg ñu jàppe ko muy doon ànd ngor àndu nawle ànd bu yàgg yàgga yàgg yàgg yàgg vraiment ni ñu ànd ne ci commune bi ànd ko ci département bi dama bëgg ànd bi ñu def ko benn say rek dootul dootul dootul kii et tout ça ñii ñooy la majorité ñëpp xam ne ñi ànd nii mooy la majorité à Tivaouane la majorité dans le département fu ñu ànd yegg ñooy gañe fu ñu ànd ñooy gañe donc suñu jëf nag dañ koy jël dañ koy jël ci commune bi jël ko ci département bi kër reculé dañ koy jël ci commune bi jël na ci département bi bi ma woowee seen kilifa Diop si aussi loolu la wax mu ne ma commune bi dañ koy jël département bi dañ koy jël parce que on a fait nos preuves depuis biñ ko yoree commune bi dañuy dépassé 50 soixante dem plus biñ ñu yoree département bi 60 truc biñ ñu ko jéemee nungu ci ñun ak ay wuruj ay truc rek dañuy wàcc quarante pour cent ah la ñu wàcc Tivaouane dem ci 47 pour cent donc li ñu moom te muy intérêt président Macky Sall nag duñ ko bàyyee ki de kenn kenn kenn kenn kenn te ñaan naa yàlla yàlla bu sëy naate dugg suñ diggante ñu def ko jàmm ak salaam xalifa li yàlla na ci am ndam lu rëy rëy di félicité bu baax Mamadou Ñing ak sa grandeur parce que c'est comme ça kuy joxe ku dul joxe cër doo am cër cër bi mu joxe nii yalla dina ko may mu amat benen cër te ñun ñëpp on s'engage ñu bokk ndey bokk bay xamni dañu am ben objectif moy tégat président de la république parce que ben objectif benn perspective stratégique bu crédible rek lañu am Sénégal pour la paix la prospérité ak Sénégal jëmaat ci kanam moy tégat président Macky Sall mu eggale programme parce que amono programme def dara ñëpp gis ko baye de fonds gis ko ñëpp gis ko ni li nga def baxna

lu mu mënti am ñoom lañ war a jiital parce que poste bi gën a nekk en vue mooy président de la république te seeni kilifa dañ ko bàyyi bàyyi kook suñu suñu suñu kilifa muy président la république bu jëlee poste boobu nag yeneen poste yi dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñi nga ànd ak ñoom te loolu lañu def tey te loolu lañ sant parce que loolu yaatal la et ku boot Sénégal da nga war a yaatal bu bu yaatalul nag am ay schéma de segmentation ak ay schéma yoo xam ni que président Macky Sall sant la ko parce que ñëw rek lu am rek nga ni bi bukki bi njuur bii kii loolu xam nga doxul et du wéy du wéy dañuy def ay stratégie yoo xam ne day wéy parce que benn nit du fi topp rek benn nit rek parce que muy jël lépp bàyyi ñeneen ñi c'est c'est impossible ça nit dañuy séddoo séddale bokk am jëmukaay bu ko defee lu am ñëpp ñu séddoo ko muy njariñ muy njariñu lépp donc vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal di leen wax ni ni dugg ci combat bi ak jàmm combat bi mooy rek gagné vraiment largement pour le président Macky Sall jërëjëf